bëgg waxtaan ak ñoom ci seen làmb ñoom ñaar bëgg waxtaan ak ñoom ci seen carrière ndax ñoom ñaar defe naa ne combat combat du ko dàq bañante nañu nag waaye xaw xaw wala boog dañuy bañantu waaye bu ñu waxtaanee yaakaar naa dinañ mën a déggoo bu baax a baax Mbengue ma nuyu naa la. waaw fay naa la ma santeen yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur di gërëm sama papa sama yaay. di gërëm sama papa Modou Sall sama yaay Marème yaay dégg naa fi sama tante Sali tante Kiné di nuyu sama sëriñ sëriñ Sidi Alxuraan di nuyu sama wóllare sëñ Mouhamed Mbacke waaw di jaale sama benn grand usu papaam daa gaañ di ko jaale képp ku dëkk si koñ bi di ko jaale famille séeréer bi yëpp maa leen koy jaale bu baax di nuyu sama boy ma àndal di nuyu koñ bu ma jógee waa Caaro yëpp maa leen di nuyu di nuyu waa Jàmm Gën ndax man ñaari goxuma sekk mhm. damaa bokk caare bokk jàmm gan di nuyu bépp ASC bu fa nekk tamit di nuyu samay jàmbaar mhm. noppi waaw ah, noppi naa sekk la waaw Ousseyn fay naa la di wax ginnaaw bañ sant yàlla julli si Yonent bi sant suñ ñaari waajur di sant suma yaay di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi di sant sama papa di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi di ñaan bépp jullit yàlla bàyyi ñu fi ñun ñëpp ndax ay jullit leen xam nga di nuyu Omar tamit xam nga aussi di di ja di jaale waa Yoff yëpp zoo sama xarit sama doom nday nga xam ne ñoo doon ànd. Mm-hmm. suba ngoon guddeeg bëccëg yaakaar naa sax bi fi mujjee ñëw ñoo fi. dëgg la la. waaw mu des si géej gi xam nga doon sonn ci man lool. Mm-hmm. xam nga doon doon bokk sama wàllu làmb di ma sotti gàllaaj di def lépp yàlla jël ko xam nga dama koy ñaanal yàlla xari ko àjjana oyofal suuf si kawam xam nga. yàlla yàlla yàlla yërëm ko daal atte ko ci yërmandeem maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax a ndax kenn la ci man quoi. Mm-hmm. am na lu ma ko jaraloon tamit. xam nga di ñaan yéene bi mu amoon ci man ak mébét yàlla àttal àggale ko man tamit yéene bi ma am ci moom ma àggale ko ci ñu ko jege ci barke Seydina Mohamed. Mm-hmm. maa ngi ñaanal zoo yàlla xaare ko àjjana maa ngi ñaanal zoo yàlla xaare ko àjjana maa ngi ñaanal zoo yàlla xaare ko àjjana ci barke Seydina Mohamed. yërëm ko di ko jaale waa Morona yëpp di ko jaale waa Yoof xam nga di ko jaale mboqam yëpp di ko jaale sama gaay yi nga xam ne ñun la doon àndal ku si mel ni Omar Thier xam nga ak seen waa kër yaayam maa ko koy jaale di ko masaw di ko ñaanal yàlla may ko xolu muñ ak papam ak ay raqam yëpp maa ngi leen masaw di leen ñaanal yàlla may leen xolu muñ gis ngeen mbokk yi tey ñoom ñaan laa fi daal bëgg waxtaan ñoom seen làmb ndax kii bi mu fi mu fi mujj fee ci Ibamar digganteem ak Ahmed Lagos la woon mu daan ko jëlu bu rëy jëlu bu gaaw jëlu boo xamante ni defe naa ne que Ahmed Lagos bi mu ñibbee am na lu ko bett. Euh, Seck mi bi mu fi mujjee moo fee ci arène nationale ak Armée defe naa mu nekk combat boo xamante ni combat bu métti la woon defe naa ne ñoom ñaar dañoo mujjee fàttali dañuy bëre dañoo suul tànk yi taxaw xeex xeex bu métti te yàgg. la moo tax nga ñëw rek ne tey dañuy nañ dee maag moom benn yoon. waaw man moom lu ma la wax rek man xale laa te tamit saa yu mooy bëre làmbu xale laay bëre mosuma dugg ci géew génn ñu jéppi ma. Mm-hmm. xam nga te yaakaar naa ne loolu la nit ñu doon xaar ci ñun ñëw wane jom jàmbaar fit xam nga def la tamit. waaw xëy na tamit yàlla mooy dogal. mu gañ a ma ak moom bi nga dóoree dóoraat mu dóor la dox juwarloo moom jàpp ko di koo daan. non moom day bañ jàppante bi. xam nga tamit làmb tamit Ouzin bëree ku bëggul bëre daa neexul. xam nga buñ jàppantee moom day ndengeñ taxaw man tamit maa ngi jéem a recherché bu paree maa ngi bëreeg blessure xam nga yooyu yëpp boo nekk ci làmb ji bon xam nga. mais liñ ñu doon xaare daal def nañ ko wane nañ fulla jom jàmbaar xam nga arbitre bi nag teew na lu ko neex ay décision arbitre yooyu moom dañu yaakaar ne moom lañ mujjee ñëw victoire bi ay décision arbitre kon dañuy jàpp ni loolu lu war a am la jeex na xam nga ñi ñaay suñu ginnaaw tamit ñu waajaat amaat combat nekkaat ci incha allah ñun moom tegguñ benn yoon ñu ngi ci kawam. boobaag léegi ñu ngi lay wax ay combat. waaw ñu may ay combat yu bari moom wax dëgg neex yàlla. chaque jour chaque saa yu may woo dañ may woo ma combat. boobu de bu mujjee ba dégg naa moom lañ doon dox. mel ni yow yaa daw. non daw ma sax ndax combat boobu taxawoon na jour bi nii ba ñu war a jot avance taxaw na nii. xam nga yaakaar naa bi bi yàqoo sax moom moo ma woo moom moom moom bëri mujjee bëreel moo ma woo téléphone. amet waaw moom moo ma mu xaw ma fu mu jële sama numéro moo li jël sama numéro woo ma ni ma sama combat ak yow na si problème mu prix promoteur bi. ma jàpp ni tamit loolu la waruñoo bëri mënoon nañoo bëri leneen xew. waaw ma nekkaat ci samay entrainement toog di déglu boobaa léegi nag ñu ngi may wax ay combat maa ngi si kawam di entraînement daal. Hmm. Hmm, mu àndal. maa koy fay bu baax. mais ma gis ka sa combat yaa ak Ameth Lagos. nga ñëw waa Caaroy topp la waa jaam gën topp la nga andi fa mafia bu dëgg boo xamante nii sa diggante booyu lan la. waaw lu ñun noonu la demee ñun ñun moom dañoo booloo. xale bu ndaw sax suy bëre ji dañ lay topp. loolu moo fa am. tey su ma leen wanoon benn yaafus kenn du ma topp. Mhm. tey ñun ay doomu aadama lañ nekk ay jàmbaar. diggante boobu ay gayndee fa dëkk. ndax jàmbaar su nekkee si yow rek booy dañ lay topp. Mhm. kon am na loo xam ne soo leen koy wan. duñ la toog kon dañ leen woon jikkoy gaynde su ci ñun suñ yoonu làmb nag moo demee noonu yoonu làmb moo demee noonu tey da ngay nekk si làmb. Mm-hmm. waaw tey am ay nit yombul. Mm-hmm. mun nga am lu ne te doo am ay nit képp ku nekk si làmb am nga ay doomu aadama yoo xam ne dañ lay bëgg te yàlla tax. Mm-hmm. man ñi may topp ñëpp bëgguñu ma ndax làmb dañ ma bëgg te yàlla tax. ndax bëri naa mu metti torop si man dañoo toog xaar ma di ko muñat man. Hmm. ba lii fekk leen fi kon ñooñ nga xam ne ay góor lañ ay jàmbaar man ay jàmbaar kese laa àndal. mais bi nga jëlee Ameth Lagos amuñu la wax ne la dangaa juum ci choix bi woo ko woon jël. waaw bëri na Ameth Lagos ba ma ko jëlee yéen journaliste yi sax loolu ngeen doon wax. yéen ñaan. journaliste yëpp. ñu nekk si làmb ñëpp. man ci laa bokk. ah ñu nekk si làmb ñëpp. jàmm ñëpp ñu nekk ci làmb dañ ne kii dafa juum waru woon jël làmb ji làmb ji yëgal naa ko ay doomu aadama ñu ne ma waroo ko woon jël. Mm-hmm. waaye sama gëm-gëm man jàpp naa ne li may entraînement xajul si Amel Lagros ñu may bëreel di leen daan ñoo mën fukki Amel Lagros. mais ko la moo tax nga ñëw bëree noonu abusif la rek mayoo ko mu xalaat. waaw damaa xam ne moom bëreem day xaar kon moom benn benn lay bëree. day jël temps day jël temps di dóor fii ngay jàpp fii te ñu ay attaquant lañ ñun ay attaquant lañ lu nekk si ñun dañ koo war di ko wane. Mhm. waru ñu ñëw ba si digg géew di changer suñu bopp chaque jour dañoo war di def lu ñu mën nit ku nekk li nga mën ngay def. naka nga bëgg ak moom. Ameth Lac Rose xam ne njool la te daa pare woon pour xeexat man moo tax ma daw cokkaas ko mu daw ñu daje man moom. Khalil moom defe naa loolu di moo ci dugaloo ñu xool ko tuuti <laughs> combat ba parce booy bi li mu bëree dafa rëy. arbitre daa sifflé rek mu daw mu daw song ko. waaw arbitre dafa dafa sifflé ba mu ne pip avant arbitre di sifflé sax man pare naa soo xoolee làmb ji. Mhm. avant arbitre di wàcce loxo man pare naa. yow waaj nga li nga war a def yëpp. man pare naa soo xoolee arbitre sifflé wul sax daw naa song amee Lac Rose bi nañ taxaw leen. kon nga war a xam ne man pare woon naa man dama dem ba samay supporteurs yu bëri dama ne leen ku si tiit wala nga am ngay looy xel ñaar toogal bul ñëw esaat kon nga war a xam ne man pare naa. man toujours pare bi ñuy wax sax maa gën a pare billaahi wallaahi du kaaduru tagg sama bopp wala kaaduru leneen ak leneen man làmb si làmb ji lañ ma xamee hmm. après nit ñi dinañ ma xamee waat feneen du tagg sama bopp de wala ay nekk fii di wax de man yéen a may seedeel ne man dama mën a bëre waaye man du ma seedeel sama bopp dama mën a bëre ndax damay wane ñuy gis nga daan Ameth Lagos booba ak léegi promoteur yaa ngi lay contacter. waaw chaque jour ay promoteur chaque jour chaque jour ñoom ay woo di ma wax ay adversaire lu tax làmb taxawagul. waa adversaire yooyu pare ma pour bëre ñoom ndax adversaire yu bari fii dama dama leen doon tëkku ñu may ñaakal fayda kon ñoom waruñu taxawaat tey ma jóge nekk si làmb ju baax jóge si ñu may tëkku. bëgg bëgg bëgg bëgg bëreen kon du ma bëreen ñoom. xam nga kii ma fi andi. kii mbër la mbër bu dëkk wet gee la. wet gan Seck Ndana wet gii. Seck sa daa mel ni sa daa mel ni xaw na la xam de xaw na la xàmmee boobu. waaw ah, mbër la ndax xam la moo tax ñu xam ko. suñu seex la bëreel. kon dañ koy xam. mais moom dafa mel ni. dafa dugg sa gox bëgg sa seex. Ah. yow nga dugg ci keppaaram bëgg. Euh, xaw ma seexam laa mën a. wax poulain sa. poulain sa poulain. waaw moom nee na poulain moo ma daan. léegi loolu kuréel na dugg man poulain am du ma daan may bëreet moom. mais moom dafa dugg ñëw daan sa seex. ah loolu dina ko fay wax naa ko sànq boor boobu da koy fay force. mais bu ma koy fay moom nekkul moom moo koy du garaaw. waaw loolu amul. waaye dina ko fay booy fay eh, bor kay day fekk. man man man man ku ñu lebal fukki dërëm dinañ la fay cent franc. lebal ñii dinaa kii essence yi nii du ma waxoon moom si waxu làmb. man dugguma ak moom xamala moo tax du fii moom làmb moo kii man xam naa ne duma ma bëreet moom. waaw man tamit du bëreet moom. loolu leer na ma nañ. waaw dama ko xam. da nga koo xeeb. xeebu ko mbër champion la. da nga koo ragal mu daan ay champion. non da koo ragal. man su ma ragalee ñu rey ma. waa léegi lan mooy problème bi xeebu loo ko ragaloo nga ne du ma xam ne du ma bëreeg moom rek ñoom xam nañ ki ma war a bëreel bu baax ñoom xam nañ ko. kan nga war a gi laa war a bëreel. caaru ngéwél nga war laa war a bëreel. mais est-ce que tamit doo boobu nag boo dem ci néeg di nga jaar ci bunt bi est-ce que doo jaar ci bunt bi ba noppi doo ko def. buntu bi nag dama ko fëq de jaaruma si dama ko fëq romb dama ñëw rek dajji buntu bi. Seck. waaw ah. bi daa mel da laa xeeb. non mbër la man mbër laa ñun ñëpp ay champion lan moom tamit am na droit li mu bëgg. man am naa droit tamit lu ma bëgg mënu laa jéggi yow tamit pour que da bëgg ak moom. non man man man kii kii dama indi mbër mu duma ko daan ko. mu indi mbër mu waaw mais mais mais mu indi mbër. toog si télé yi wax lu ko neex wax lu ne moom mi seeraan naa ko si ëppoon presse mu wax ko neex ma duma mbër moomu daan ko na jël ma jël bàcc seeraas loolu amul problème. bàcc jëli caatu nga jël bàcc loolu man sama yoon nekku ci moom mbër bu am na droit tëkku bu ko mu tëkku maari eh, kii su taxawee fii. loolu làmb la mais man a bàcc seeraas. xol bee jeex alxuraan Ousseyn man ak bàcc seeraas. yéen si débat. laay wallaay. kii su taxawee man yoonu làmb laa wax. Baye Zara mbër la wala du mbër. man yoonu làmb laa wax déglu li ma lay wax. man fu mu munti taxaw ne leen jox leen ma caadu ngéwél gi ak lu làmb ñëpp a koy nangu. déggoo ma soo taxawee. boo Baye Seras da ngay jàll kaañ. boo taxawee nga laaj Malick Niang làmb ñëpp koy nangu parce que mbër nga muy mbër. loolu suñu yoon nekk. yow mbër nga. mais dama ne la man ak Baye Seras Baye Seras ci kenn xamul daa dugg kenn xamul daa génn man moom làmb la. barke alxuraan ma génn ko làmb ji benn yoon. si gaawaay billaahi bu ma jëlee ma génne ko làmb ji si gaawaay du ma ko daan. loolu du ma si débat barke alxuraan. dégg nga su ma si débat moom. moom yebluwul Bathie Seras man maa yeblu Bathie suñu papa toog déglu ko. bu nee suba la làmb ji laa toog déglu ko mu làmb ji laa toog seetaan ko mu indi mbër. Hmm. wax lu ne. ma duma mbër moomu mu dem ardo ñaari yoon ñëw ma jàpp ko daan ko yaa dégg mm. ma indi mbër mbër moomu jàpp ko duma ko daan mu toog di lay naan ay nii seek jaar seek bàcc seraas papam seek moom laa soxla seek waaw mais yow ma wax la ñaar waaw yow mu yaat mbay xaraa si si yoon bi doo ko daan de barki Seydina Muhammad lamb tërëdi yaan mbay xaraa si mbedd. waaw mën na la daane jàmm gën ba yoof. bëréew moom ci mbedd. waaw dama lay wax rek wax lenn. xam nga boobu ba tey ba nga daanee mbay xaraa ba tey. yow yaay sama seex la. kooku dépassé foofu ay maa ngi mbay xaraa. parce yaa ko andi. yaa ne maa jàpp sa mbër du ma ko daan ko. loolu yaa ko andi kooku sama seex la. ko su ma waxee si moom damaa war a wax si moom. di ko ñaanal jàmm nag. amiin amiin naan ko si làmb yal na ñëwaat. amiin yaa ngi dégg. ñun mbay. suñu seex la. kooku suñu nit seet si woon ñu am làmb sax moom mu am làmb ñu bàyyi suñu làmb topp ko. kon xam nga ne kooku tey man moom du tay dëgg la suy bëreet yow. lu ma si war a wax dama koy wax. waaw da nga see wax ju bari nag. wax ju bari limité say wax que moo tax may yaa may limité loo wax. non bi nga gisee wax di di di ratatati boobu. xam nga wax si xaw. mu ñëw ma duma ko daan ko jox la sama problème mu duma la daan la. yow Seck. barke yàlla. yow da ngay xaar dégg nga. barke Serigne Bamba si yoonu làmb da ngay xaar. bor boobu noonu di ko fay. waaw te xale bu ndaw moo la koy fayee. ku ma ne bu ma koy fay. <laughs> du yow yaa ñëw. fayeeku ma fay la ko. waaw man man xam naa ne bëriwul man ma bëriwul. maanaam ndax sa poulain woo ma daan. buñ demoon ba may lii. sa poulain moo ma daan nee nga sa poulain. sa poulain wala daan. mais moo tax bëriwul di nga ko fay yow force da nga ma ma fay bor. da nga koy la xale bu ndaw moo la koy fayeeku. te doo si mën dara. mais Mbengue Mbengue est-ce que doo ma jëlal booy bi tamit. xaw ma ko am noo ko def. puus ko doog a xool leneen. c'est que na nekk si yoonam ma nekk sama yoon. waaw de naaj la moom. kon bokkul sa yoon nii. bokkul sama su bokkee sama yoon. dinaa ko jël ndax làmb dafa tërëti kenn xamul fu mu jëm. biir buy wasin la de. mais léegi ñan ñoo say adversaire Mbengue. limal ma trois wala quatre ñoo xamante ne nii comme que nee nga bañ nga bañ nga bañ nga sekk ndaana limal ma quatre adversaire wala trois yoo xamante ni làmb bu ñu ko déggee dañu xam ne lii combat bu jaadu la. damay la. Ah, moo tax ma ne limal ma ñett wala ñeent. waaw man man daal leen na laa la mën a wax dama fi nekkaat di tëkku keneen. ki ma yàlla booleel ma xam ne moom la ma yàlla booleel li ma la war a wax wax naa la ko caatu ngéwél gi su ma jëlu dafa ragal naa la wax leen nag de mbëri wax ji bëri na niire waaye ku nekk sa biir néeg ba tëdd jël njege naay teg ventilo ëpp la di nga xam jàmbaari de billaahi wallaahi ñun si. waaw léegi ma limal ma trois adversaires moo xam man du fi tëkkuwaat keneen. kooku daal ngay laaj ñeneen ñi ku ñëw bu jaadoo nga jël. bu jaadoo samay mbokk suñu nangoo kii tey su ma ñibbi woon samay mbokk nangu ma jël ko waaye kii na nekk si yoonam ma nekk sama yoon. victoire rek. du cadre victoire bu bees man ngaa toog laaj ba la kay. man man victoire man ba ma ba ma daanee laa xëy entraîné ji. daan na mu ndam. kan man man maa si trois si trois victoire laa toog. yaa may dégg muy jibile ku namm ndam du toog si ay trois victoire. yaa may dégg ba ma caat daaw dafa daanee ba tey trois victoire laa toog. mu koy ñaanal ndam lu mu jig ko. yaa may dégg yow yaa ndam am na am na dura kan. man yaa namm man bi may si bëri démb laa jógee sa yow. waay yow waaw waxuma la. duma ko mbër daan ko kalla duma kalla am bàyyil duma kalla barke suñu bamba dama koo duma billaa dama koo duma daan loolu rek ay sa yoon làmb non non maanaam danga siy déglu fii moo wax la yow yaa si débat ma débat si ak yow man làmb muy yow muy keneen ak keneen ak keneen sama moroom yi lijjantiwuma si kenn maa man samay moroom waa yow say morom waaw boobu ma dama leen koy wax. wax say morom mais man dama wax nga say barki Baye Siiri Mbàkke du ma kii bu ñu géwaloon barki ah. alxuraanu karim du sama fii ba mbooroon kon daal yaa mais mais bu nekk fii di wax ay kii man bàcc seeraas bëgg a bëreel. bàcc seeraas ak moom laa fa am adversaire secteur am. boo génnee secteur bu ma génnee secteur am nag après ku ñëw baax na. gis ngeen mbokk yi noonu la demee ci jàmmaarloo tey sekk ndaanaan laa dalaloon ak ki nga xamante ni mooy Mbengue Mbowe mu nekk ñaari xale yoo xamante ne nii ay ndaanaan lañu mais fi mu toll nii wàllum entrainement yaa ngi nooyal wala boog yaa ngi yaa ngi ko ci teg bañ a teg. nooyal man li may am ay gën a metti si ma jóge man li may am moo gën a metti si li may jóge billaay wallaay xam nga tey doomu aadama laa te nit mhm. kese laa man chaque jour si coono laay coono laay daj chaque jour su ma xëyee damay entraînement ba ma daanee amee lagros noppalu trois jour dama tàmbaliwaat entraînement man li may daj mbër bu mag sax du ko daj. lu mbër bu mag su ma toppee li may daj mbër bu mag du ko daj. kon boo yi nii duñ ma yéem moom génn naa ko ci classe ger guerre gi yeneen booy laay wax moom. man wax naa ko sam bopp. voilà wax naa ko sam bopp. donc yéen a ngi waxu wax sa bopp boppam. man la wax mais waxu la que moom wax na la ki mu bëgg a bëreel man wax naa la ki bëgg a làmb loolu la moom bëgg na. kii na dem tëkku ñeneen. man man man. Bathie Seras bu muy tëkku noonu circulation làmb lay andi. moom billaahi wallaahi wataalaahi bàcc seeraas bu ma jëlee ci kàttanu yàlla ma duma ko daan ko maa ko man maa ko doole. fi mu toll nii booy booy. wàllu man maa si man maa ngi chaque jour ñun si wetu géej gi lañ dëkk. Mhm. ay xale lan dañuy entraîner chaque jour xam nga. fan yee nag dama xawoon toog entraîné wu ma parce que dama amoon dese. nekkoon si ay nekkoon si ay mbir xam nga. mooy loolu nekk si dese bi yooyu noonu. di ñaanal zoo bu baax a baax a baax ndax damaa jige woon quoi maa ngi koy ñaanal maa ngi koy ñaanal fu ma toll maa ngi koy ñaanal. xam nga mais ñu ngi si kawam ñu ngi si entraînement yi ñu ngi si léppam. parce que moom sama làmb sax moom a ko gënoon a bëgg. kon bu ko yàlla jëlee tamit dama koy ñaanal parce que ñaanal ko laa man manuma leneen. ay mais daal ñu ngi si kawam ñu ngi xaar incha allah rabi ñu ngi doon wax sax grand combat mais. ñu ngi si kawam daal ñu ngi déglu yàlla bëri na sutura. Hmm. waaw ñun ay xale bu buñ bëree day neex buñ feccee day neex. nun ñëwee ci làmb day neex. làmb boole wuñ ci suñu bopp la ñu cee boole. ñu ñëw tamit wane ci loo xam ne nit ñi dañuy tuddee suñuy moroom tudd kon dañuy sant yàlla te amaana yàgguñu si. man hmm. booy yëpp ñoo njëkk a bëree. mais tamit damay sant yàlla bu baax a baax ba ñu ma tuddee tudd leen fu ñu ñu tuddee tuddee tudd tudd ñun. waaw ñu ngi sant yàlla daal. di xaar di wax yàlla baax na. Mbengue soo amoon kàddu yu mujj. man kàddu yu mujj nañ ñu ma bëgg a nañ ma jël. ñun hmm. tey mënuñu ñun ñun tey mënuñu ku ñu soxlañ mu bañ. tey boo ñun suñu soxlaa ñu jël. làmb ji il faut ñuy mayante sens. mais may sens teelul. may sens man damaa mën a dëkk di bëre samay morom nañ ma jox si ñu mañ ñu xam man la laa mëne. mais wax naa na nga limal ma fii mais benn nga fi wax. toog jàpp sa njàpp déedéet fi di tëkkuwaat keneen man su ma nekkee di tëkku mbër sa ramaa yem ñu ma àndal. caatu ngéwél daal nga bëgg mu may la. sànq caatu ngéwél na ñëw ñu bëre. loolu leer na ma. ñaamu ndaw làmbam su su amul adversaire na ñëw ma may ko sens ñu bëre. ñeme ngaa dugg ci ñaamu ndaw. billaahi wallaahi ma daan ko jël bu gaaw. billaahi. du cadre luñ toog fii moo tax ma koy wax de. li ma ci jaaxal combat Gris Bordeaux Balla Gaye moo woon bëri spécial bi te ñàkk adversaire moo tax bëriwul spécial bi. léegi nag man noppal naa leen. noppal naa leen Abdoulaye Ndiaye sax laa koy wax. noppal naa ko mais am sutu la ëpp la yooyu. Ah, yow sut ëpp damaa daan. maa yaakaaru ndaw ñi de xale yëpp seen yaakaar man lañ ko dénk. baal coow lañ ko wékk. ñëpp kon su ma ko tasee rek dama leen a yeb. jël ay xale jël seen yaakaar tas seen yaakaar nga xool ak boobu foo koy. kenn kon baax na. tàggatool. waaw di sant ñëpp koñ bi ma jugee di sant samay jàmbaar yoo xam ne si biir lañ ne yàlla teg leen nattu. Hmm. képp ku nekk si biir maa lay ñaanal jàmm fi nga nekk. di la ñaanal yal na la suñu borom teggi nattu yooyu noonu ndax damaa bëri ay jàmbaar yoo xam ne si biir lañ ne ñii cent mètres Cap Manuel. Hmm. ah di nuyu ñëpp. barke Seydina Mohamed di leen ñaanal jàmm yàlla delloo waat ci leen suñuy loxo waaw am na boo yoo xam ne sax seen papa gaañu na seen ginnaaw barke Seydina Mohamed mu metti lool ñoom ñetti ñëpp ak Saara sama rakk moom tamit papaam gaañu na si ginnaawam di nuyu sama waa koñ ñëpp di nuyu Cheikh Ba borom posu caaro yi di ko nuyu borom golf yi di ko nuyu bu baax a baax taal bi sëñ Abdou Karim bi maa koy nuyu di nuyu sëñ Mbacke sëñ Fallou Tafa Kara Mor Big Boy Babacar Sarr sama chauffeur di nuyu waa Sarène bi yëpp waa Lesporo di nuyu Ibou Socé Tafa Ndiaye Khadim Faye Cheikhouna Faye waaw Adama Ndiaye Codé Farba sama xarit billaahi day jàpp sama lépp Lesporo dama koy sant Touba Thiam tamit di ko sant bu baax sama grand gañ Alpha Bey ñooñu ñëpp dañuy jàpp dañ may jàppale di nuy waa Pàkk Ñambi Pàkk Naajo di nuyu ay ñoom Maadi Ibou Laay Bas ay Lamine Joolaa sama xarit bari Serigne Bama lu nuyu samay booy yëpp yu dëkk si koñ bi sama koñ dañ ma jàppale. képp ku dëkk Caaroy ASC bu nit nekk aw ma seen fay di wax waa Caaroy man seen doom laa nañ ñëw jàppale ma di nuyu suñu waa dëkk Pout ma dëkk. di nuyu waa samay mag di leen nuyu bu baax a baax ku si mel ni André Abou Thiam Aziz Seck sama xarit sama papa kooku sama papa lañ ko tuddee. day sonn si man ay sëriñ Moussa borom saña fiil wës di nuyu ñëpp awma fayu kenn fépp fu doomu aadama di ne samsam un samsam di nuyu sama jigéen boo xam ne tamit day sonn si man muy dadi kara di ko nuyu bu baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm moo xam lu mu bëgg ndax sam samsam su demee ba nit ñi sax di mu bëgg di ma topp yàlla ak jëmmam la kooku dama naan sam li ma fa am fondement bu ma fa am moom moo ko fa taxawal lépp lu ma fa di nuyu tamit waa yëmbal ba benn barak géejawaay pikin lay bu pikin di ko nuyu lay waaw di ko nuyu bu baax barki Seydina Mohamed mu doon sama lonko Baye Mohamed di nuyu ay ñoom Bas Bas di ko nuyu bu baax borom pikin sama lonko ay nday jàbba waaw di leen nuyu Mayta séeri lay di ko nuyu bu baax a baax di nuyu Fat Seen borom buun di ko nuyu bu baax di nuyu ay jéemu ndaw waa yëmbal yëpp maa leen di bégee amet mu ndaw fàllu jeng saala yëmbal aw ma fayu nit ndax boo dañ may topp dama leen di woo ñu bàyyi seen lépp ñëw di nuyu koñ bi ma dëkk foofu maa fa dëkkale sama bopp ginnaaw mhm. dama fa dëkk nekk si igiri bi nag sama mbébét mooy lan yëkkati leen igiri bi ba ñoom fu ñu bëgg mu toll ma tollale leen ko fa ndax dañ ma jàppe ne seen doom barke rasulullah kon ba seeraas lañ ma jàppe ñoom dëkkuma fa de waaye saa yi may entraînement si man waa ginnaaw raay niñ may seetaan see barki rasulillahi sama waa koñ duñ ma ko seetaan see moo tax su may wax si ñoom sax barki Serigne Bamba may am yëg-yëg boo xam ne ñooñu lebal na ma loo xam ne fayaguma leen ko te damay ñaan yàlla di ñaanal may sens di ñaanal Siteu patron na moom may sens lu bëri di ñaanal Siteu làmbam bi mu jëm yal na ko suñ borom taxaw may ko ndam ndax suñu làmb la suñu buntu làmb la làmb ji tey amoon na mu yàqu kon làmb jii nii dañuy ñaan yàlla képp kuy doomu jàmm gan fu mu nit mun a ne di suba récité ñoo lay woo di ñaan a caat fooraa tamit yal na ko suñ boroom may ndam guy ga dimanche ay suñ borom may ay sàmba kooba général di nuy sama garaa ñaq jariñu bu baax a baax suñ waa écurie tamit ay aali kotoor ñu fa am làmb ñëpp ay armée de yal na leen suñ borom may ndam barki Serigne Bamba ñun xale lañ ñu ñuy topp bëri moo tax gis nga sant bi nu mu demee. Mhm. waaw di nuyu ñëpp fi ma jugee di sant ñëpp tamit di jégaluwaat si wax yi su dee ma am ku ma su dee dama koo dépassé. maa koy jégalu ah, kii nii patron jégalu ndax ñun ay xale lañu rek barki Serigne Bamba. Hmm. maa ngi jégalu ñëpp di leen nuyu yéen ñi ñëpp. kontaan waaw. sa kàddu yu ah santaat yàlla rek santaat ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan di wax bu dee dégg nañ fi lu na xare ñu ngi jéggalu xam ne ñun ay xale nii leen mën a def neexal xam nga ci mbiri làmb lañ nekk di ci yëngu moom li ñu yéene yaayam loolu laa yéene suma yaay ñeneen ak ñeneen tamit lool leen yéene seen yaay di wax tabaski bi ñu jëm yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm ñi am xar yàlla dooleel leen ñu am luñ ci def ñi amagul yàlla may leen kàttan ba ñu am xam nga di ñaanal ñëpp ñëpp ñi nga xam ni tamit ñu ngi may jàppale ñu gën a am kàttan pour jàppale ma di nuyu waa Yoff bu baax gi nga xam ne balaa jóge bu ma amee ñoo am bu ma ñaaxee ñoo ñàkk di nangoo sonn samay bis Ngor Wakaam maa leen di bëggee bu baax di leen nuyu waa Ngor waa Wakaam waa Almadi Taravo xam nga maa leen sant bu baax a baax a baax parce que dañ ñuy jàppale ñun tamit ay xale lan buñ jugee ay nit ñoo jug te nit ñoo di jug lii rek lan am ci ñun ñu sant leen gërëm leen. ndax suñuy bës dañ siy jàpp bu baax a baax a baax di nuyu booy may àndal yëpp sama mafia booy yëpp maa leen nuyu ku ci mel ni Omar xam nga barki alxuraan fu ma fu bëgg a dem otoom lay taal yóbbu ma duma laaj cent ci nit koo xam ne sa moroom la yéenay ànd yàlla boole leen fu ma bëgg a dem nag otoom lay taal maa ngi koy sant bu baax a baax a baax sama baay faal bu ñuul bi xam nga di sant tamit ñi nga xam ni ñoo suma waa koñ waa ngéwél di sant géwél yëpp ndax man mu amee combat géwél yëpp dañ may jàppale maa ngi sant géwél yépp di sant géer ñépp tamit ndax ku ni géwél ni géer ni leneen ak leneen maa leen sant bu baax a baax a baax waa Touba maa ngi leen di sant di leen gërëm waa Diourbel waa Thiès xam nga ñëpp ñi nga xam ne dañ may jàppale ñoom xam naan xam naa samay combat ñi si taxaw ñëpp maa leen sant bu baax di leen gërëm xam nga di jaalewaat yoof waa yoof gépp zoo mbay sama xarit boobu di wax na ko ñëpp di ñaanal ndax soxla na ay ñaan fa mu nekk barke Seydina Mohamed man de sama xol du jug si moom du ma jug tamit ci di ko ñaanal ndax da doon sonn ci man torop torop torop nit koo xam ne man dama naan sax yàlla da ko fi wàcce woon ngir man ndax lu ma nekk mu nekk ci lu ma bëggul bugg ko barke alxuraanu karim maa ngi koy ñaanal yàlla xari ko àjjana firdawsi xam nga di wax agent yi nag ñu ngi si suñu ruq ñu ngi entraînement bàcc seeraas na ma may yow bu ma mën la may sens. maama Lamine na ma may sens. xam nga. yow pourquoi ma pourquoi ma leen di bàyyi di ay mbër nga naan maan ay ma leen di bàyyi du ma leen bàyyi ay mbër lañ mooy ay mbër. Second Dan yow mbër nga. déedéet nga si làmb ji. yow yaa ma génn si làmb ji génn léegi si làmb ji. waaw na. dama lay génn ci làmb ji Ouzin maa santaan ñëpp. Mhm. xam nga neen damay génn ci làmb ji. kii tuuti na pour génne ma ci làmb ji. génnewu ma la làmb ji de. ay grand bàcc seras. ndaw làmb ji. bàcc seras bu may wax nii bu may masaat ñu bëri. bàcc seras suñu papa la suñu mag la ñun ñëpp. dafa def si làmb lu koy laaje ñaanal di yàlla nga yow nga def si làmb lu lay tëkkoo yow. bàcc seras dafa def si làmb lu may toogee fii. yow da ngay waaye ku xaroon sa xol bii nii bëree man rek nga bëgg. barki Serigne Bamba. barki Seydina Mohamed. Seydina Mohamed ak fi ñu toog nii. ku xaroon sa xol bëree man nga bëgg. barki alxuraan da ngaa ñemewul taxaw ne ma damaa bëgg bëree yow. wallaahi wataalaahi waxool. billaahi wallaahi. kii bëree man rek la bëgg. bëree moom lu ki ma bëggoon bëree moom may toog nii. naan ay bàcc seera suñu combat ñu bëree nii. def nii bëree man rek nga bëgg. kon yow xanaa da ngay wiiri wiiri. waaye déglu li ma lay wax lu mu bëgg li ma lay wax. kii toogu fi wax lu mu bëgg moom. man li ma bëgg laa wax man bëriwu maa yow de. waaye yow sa xol xaroon bëreet man nga bëgg. yow bëreeg yow laa bëgg yow bëreeg yow fan la ma jëmee barki Baye Sidi Mbacke. yow bëreeg yow fan la ma jëmee yow li nga mujjee bëreel dan ma ko doon forcé. waaw baax na. ma ko fi di la jël yow baax na baax na sant yàlla baax na. dañ sa patron yow na ñëw bëreeg man na ma may chance papa Bac Seras may ma chance ñu bëre da ngaa def si làmb lu ñu lay laajee nag moo tax ma toog fii waaw may ma chance ma bëreeg yow daan na dem ndax daa am fu mu bëgg a dem ci làmb te yow yaa am fu mën yóbbu may ma chance ñu bëree. waaw di bëggee ñëpp tamit ñi nga xam ne dañ may jàppale di la ñaanal Ouzin ndax yow sawaar ci làmb ji ñëpp gis nañ ko barke alxuraan day jàppale mbëri yëpp xamewul mbër bu mag ak mbër bu ndaw. te jii nii làmb bu accès fii nii moom am na ci pas de responsabilité ndax yaa te yàggu ci noonu la nest pas. Mm-hmm. yàggu ci mais mu bay waaram mu ngi jàppale mbër yi mu ngi dem di saytu mbër yi tamit xam nga ku ni làmb ni mbër waaye ku ni làmb tamit ni yéen ndax yéen tamit da ngeen siy sonn dagg seen yite yépp di dem di jëli mbër yi di leen wane. xam nga dañ leen di ñaanal rek surtout yow di la ñaanal yàlla defal la jaamu defal la xéwlu saawaan baawaan may la jabari géwél ndax dégg naa temps yi waaw <laughs> mooy loolu. ceebu ngéwél waaw. gis ngeen mbokk yi ni la demee woon ci jàmmaarloo te mu invité nga xam te mooy Mbengue Ba ak Seck Ndanane waxtaan ak ñoom ci làmb waxtaan ak ñoom seen carrière di leen jox dig daje beneen yoon yeneen mbër beneen jàmmaarloo jaa ngeen jëf.